alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asalaamualeykum yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalwaaq di leen baalaaq di fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul bi xuquqil iman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 alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala dalin ñu bëgg njëkke nuyu borom dëkk bi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 nee na dëgg la joo xam ne nii li nag walaakin aksarnaa si laay la moom lépp ci nit ñi nag moom xamuñu loolu mu ni wala tasunu anna fadlalaahi taala fii fi mada aw sawu minu fi ma yayati xayra an al abdi isa taxayara bi nafsihi xayara rabbuhu maakaana bi fi ma lakum li sëñ Abdulaa doon wax naa ni nit ñi ñooy soppiku waaye yàlla du soppiku waaye bu ngeen soppikoo seen jëmmu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 kenn mënta mucc lu dul nga ànd ak ndigalal yàlla ndimbalal yàlla ndax yàlla moo ni in tansurullaah yansurukum wa in yansurkumullaahu falaa gaaliba lakum wa in yaxsulkum faman sallasi yansurukum min baadi wactasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa tuubu ilallahi jamian ayuha almuminuuna laalakum tuflihoon sëñ bi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 sa sayan walakin annaasa anfusahum yaslimuuna muy wax ni payug ñee nga xam ni ñoo defoon lu baax kooku loolu lay fayoo ki nga xam ni deful woon lu baax nag rëccu rek lay def moo tax muy waxaat ci beneen dénkaane moom sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbakke nee na fa'tabiroo yaa ulil absaari falaa taxurannakum al ayaata dunya wala yaxurannakum bilaayil xaruur mu ni way waasi i al wasiyatu rabia mu ni dénkaane ñeenteel allati wajaha ila naas mais bi mu ko bi ko juble woon jëmale ko ci nit ñi ci loo xam ne nii da ko doon woot nit ñi ñëpp ñu war a àndandoo def comme lii ngeen santaane fii ci liggéey bi muy wax ni toog rek bañ a nekk ci liggéey bi loolu amul njariñ moo tax mu ni Euh, fa tuuboo yi xablal mawti nan tuub bala ñuy faatu wa daari koo xablal fawti te ñu dab li nga xam ne moo ñu faatoon ci ndaw bu dee xale lam defoon ci lu lu noonu bu ne mënatuma am lu baax ndax aqiqati tawba adama awdi dëgg-dëgg tuub mooy boo defatul la nga defoon rek yàlla dana ko far mu ni wa baadiru bil amali salihat na ngeen gaawante ci jëf yiw ndax wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa asama ajran waskuru nicmatallahi alaykum is karamakum wa faddalakum ala kasirin min xalqi nee na ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni yàlla moo ko neex mu gënal ko ci lu bari ci mbindéef yi tafdilan kama axbara bihi fi kitaabil asis comme ni mu ko xibaare ci téeréem bu tedd bi huwa allazi xalaqakum wa zawarakum fa ahsana suwarakum wa rasaqakum min at-tayyibaati la'allakum tashkurun nee na yàlla mi nga xam ne moo nu bind melal nu mu jël suñ jëmm yii mel ni dañu koo rafetal ndax la mu waxoon wala xad karam naa bani aadama seet na suñ jëmm yi liñ bind lépp bëggoon ko cee rafetal wa rasaqakum min at-tayyibaat nee na fa ahsana suwarakum mu melal loo xam ni moo gën a rafet mu wërsëgal leen ci lu bari mu ne laa lakum taskuruuna wa min niamihi aleykum nee na bokk na ci xéewal yi nga xam ni moom la suñu boroom defal defal leen ko an jaala lakum sama wal absaara mooy bi mu ñu defee ñu mën a gis may ñu ñu mën a dégg may ñuy xel nee na wamil maalumi dururatan muy màndarga yoo xam ni daruri la an al xayya laa yastax nii an asir ahya ndax dund maanaam doyul ci mbir yi wala yumkinu li ahadin te jàpp ndiwul ñeel kenn an an yanaala shay'an minna ilaa bi waasitati qudratil baar mu am dara te jógewul ci loo xam ne yàllaa ko dogal natt ko mu am ko walut fii akok ñeewente gi nga xam ni moom la ñeewente doomi aadama wa iradatihi akok nammeelam jàlla wa nee na ila geyri zalika nee na ak ci leneen loo xam ne nii du loolu mimma laa yaxfa aleykum mimma laa yauddu wala yoxsa bokk ci lépp la nga xam ni mënee su koo nëbb mënee su koo lim mënee su koo takk min anwaayil niami ci xeeti xéewal moo tax mu ni fajtahidoo fi li fi imtisaalil awaamirihi wa tinaabil manaahi na ngeen farlu ci takkook ndigal yi te wattandi ko tere yi waalamu te ngeen xam ne ann al manfaata allati fi l awamiri mutawajjihatun ila al mumtasilina wa ann al madarata allati fi manaayi mutawajjihatun ila al murtakibina na ngeen xam ne taxaw ndigal liñ koy jëlee mooy danga nga cay amee njariñ waaye taxaw lu dul njariñ nag ay coono rek ngeen fi ngeen ciy jëlee laa ilal amiri wa naahi isil xaaliqu laa tanfahul ibaalatu ndax yàlla jaam gi ñu koy jaamu amula njariñ wa nahaana anil maxsiyati danoo tere rek ñuy mooy li yun jiyana mina naari ngir mu musal nu ci sawara wa euh, wa taqullaa wa aslihu saata baynikum mu ni na ngeen ragal yàlla te ngeen def seen diggante ku nekk mbokkam mbokk moro wala yuhib ah, kullu ahadin minkum li axi maa yuhibbu li nafsi mu ni bu ngeen defee seen diggante ak mbokk nga xam ne li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa moroom wa tahaboo fillaahi te lu ngeen di soppante na yàlla tax te ngeen bañ a soppante ci ay parti ki leneen wa taawanu alal birri wa taqwa te ngeen di dimbalante ci ragal yàlla ci ci ci def ba lu baax ak ragal yàlla wala taawanu alal ismi wal udwaan te bu leen fekk ab mbir mu baaxul ngeen di jë dimbalante ci loo xam ne day indi bàkkaar wal yuraayi kullu ahadin minkum maa yaxsanu bi islaamuhu te ku ne na sàmmanteeg boppam ci lépp loo xam ne kii day rafetal islaamam min muwaafaqati ahli la ci loo xam ne ni dafay dëppoo wàllum nguur gi ndax boo nee ci réew buur soxla ngay defanteeg moom day wàññi sa kàttan moo tax mu ni min muwaafaqati ahli dawla wa ru'asaa'iha ak kilifaam wa isaafihim fi ma yuridoona min mataalibihim wa aaraihim ma sabril jamil lépp loo gis lu mu la naqari naqari rek lu ñu mën def yow muñ ko ndax mboo ca mu ñulit ay coono lay indil moo tax ma af sabril taati wa ala al balaa'i wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal jooci wa naqsin min al amwal anfusi wa samarati wa basiri saabirina allazina ida asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa mu ni ki nga xam ni moom moom la natt bi ñëw mu muñ ko moo xam ne ak ragal la wala mu xiif wala mu wàññi alalam wala dara ci bakkanam wàññi ko wala toolam yoo xam ne ni ñu koy waxee nawet bi baaxul ren nee na wa basiril saabirina allasina isa asaabatum musibatun nee na booy béglee na nga bégal ñi nga xam ni bu leen musiba da leen ñu ne ah nan dellu ci yàlla xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaayika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaayikumul muhtaduna nee na ñoom day ñooy sellkat yi nga xam ni ak jóge seen boroom ak yërmande wa ulaayika hum muhtaduna ñooy ñi nga xam ni woy gindiku lañ mu ni nab taxilu sëriñ bi ni nanu buur ilalaay jëme ci yàlla taala bu ñuy jóg nañu jóg jëm ci yàlla an yu jaasikum anna xayran def loo xam ni ci lay jële aw yiw <clears throat> wa yëg fii naa wa iyaakum dayran te mu fegal ñu lor fi daara ni ci ñaari kër yi lépp lu ñuy def nañ fexe bala mu ñuy def ñu mën caa jële njariñ fegal ñu lor ci ñaari kër yi waane taqabbal naa wa minkum te yàlla nu yàlla nangul nangul leen waan yar suqanaa saadata ma te yàlla sunu boroom yàlla nu wërsëgal texe goo xam ne kii day sax waane yu baddila makaana sayiati al asana lépp lu ñu amoon ci barab boo xam ni ñaaw téef lañ fay def mu defal nu ko wotteel na ko loo xam ne rafet la ata tarda ba yàlla gërëm jami'an bi jami bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa jaayi kulli man loo jaawoon indallahi wa salaam mu ni waasihi al wasiyatu al xaamisa al axirati min bayni aasi al wasaaya al aami wa aydan fi daari al nee na bi dénkaane mi ngi ko defoon ci këram gi ci daaru xudduus bu fekk day woote ngir dundal comme nii ngeen di def rek iya andi zikra rahil sayq al booba day woote ci ñëw see xadim euh, mu ci soññe dañuy wax ni da ko woote woon ay at ba yàgg ñu mel ni dañ koo xawoon a kafkin waaye woote na ko ay yet ay at ñu doog ko euh, yokkaat ci ndigalal sa Cheikh Mbacke muy wax ni euh, wax taala oddu ila sabili rabbika nee na na ngeen ñaan jëm ci yoonu seen boroom bil xikmati wal mawida ci euh, wa ikam ikam xam-xam ikam nag lu jafale yàllaa koy maye wawul mawisatil asanati ak waare yoo xam ne dafa rafet waxawlu jàlla wansa faatabiru yaa ulil absaar nee na xelaat leen xalaat leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi lu wër te yor xel yu rafet yi xawlu taala ad'uuni astajib lakum yàlla moo ni na ngeen moo ñaan ma may leen nahmaduhu wa naskuru bi jami maamidihi kulliha ma alimna minha wa ma la na'lamu wa nus'idu ta'ala bi min jumlati saqairi wal kabairi tawbata abdin zalimin kon loolu bokkoon na ci li may barkeeloo ci Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké li ciy tegu xam naa des na sax waaye nag xëy na temps bi day gàtt kon sëñ bi wax na ni nañ jàll ci xam naa ab murid dadul doyal ci mbokk ma moo tax waaye sëñ Modou Moustapha Mbacke mi ngi waxaat ni bismillahi rahmaani rahim ah, rabba ah, mu ngi wax ni rabba in ah, ma man jaa bil hasanati falahu asru am saaliha ku dikkee ci lu rafet ñu fay la fukk wa man jaa bi sayyati falaa yujzaa ila misla ku ñëwee benn bu ñaaw ñu tegal la ko fa innamal mu'minuun ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wa taqwallaha wa aslihu saata baynikum nee na sunu borom nee na na ngeen ragal yàlla te defar seen diggante aw ay bañ fii ne wala tabaaxadoo te bu leen di bañante wala taxaashadoo te bu leen di merente añaanante wa taawanoo alal biri wa taqwa na ngeen te dimbal goo xam ne dangeen koy teg ci dëgg ak ragal yàlla wala taawanoo alal ismi wal udwaan nee na te bu leen di dimbulee ci loo xam ne day indi bàkkaar wa taaddabu maa ru'asaa'ikum dunyawiyati na ngeen na ngeen ami teggin ànd ak kilifay addina yi ahli dawlati wala tunaasiyum te bu leen xëccoonte ak ñoom fii ma baynakum ci la nga xam ni moom leen yàlla sedd mi maa ja'ala llaahu fi aydihim ay su annum yu aawinoona ndax fu ñuy dimbalee ci suñ diine te bañ koo yàq rek wala mu yusfidu alayna fii diinina te lu ñu yàq suñ àdduna nee na waxad qaala taala fi kitaabillahi laa yanxeekumul laahu ani lazina lam yuqaatiluukum fi diin walam yuxrijookum walam yuxrijookum min diyaarikum an tabaroohum wa tuqsidoo inna laa yuhibbul muqsitina te gini murit la ma sëñ bi jox xam naa ni mun ma dugg ci kon moo taxoon ma bëgg a jël xujuraat loo bëgg ci toggi la murit mi ngi ci saaru ujuraat dama ne woon naa barkeelu ci sëñ Modou Moustapha waaye loolu dina ñëw daaru musi xam naa ndax borom daaru musi moo jàngal ki ma doon jàng waxam déet waxtu Baye Fall day gàtt de man maa ngi yóbbu dow de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 ndax damay bañ a dugg fenn ñu naan nangam waaye rek nun ñëpp ko bokk moo tax ma ne yaa ayuha amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wa taqula inna la samiun muy teggin yoo xam ne nii yu yëkkatiku la fi xadarati nabii alayhi afdalu salaam te biñ koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi teew wa ta aflali salaati wa taslim tahsiman li maqaami sarif ngir ñu màggal ko bi waxee yonent bi lay julliwaat ci moom nee na wasafahum taala bil iman nee na yàlla melal ko ci gëm li tan siyatihim ngir mu sawarloo leen wa irsaadihim ila asma mu mu mu jubbanti leen ila asmal makarimi ci li gën yëkkati ko ci ay jikko nee na fi taaddu bi maa asrafi rasulillahi maanaam teggin yoo xam ne nii day ànd ak yonent bi asrafi rasul mu ni teggin yooyu ba llaahu ilayhim yàlla moo ko yónni ci ñoom li yuxrijuhum min asulumaati ila noor ngir mu génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci ak leer ay yaa man akramakumullahu bil iman mu ni yow ki nga xam ni yaa gën a mën a teral nit ki ci ànd ak gëm wa saddaxtum bil kalaami rahma te nga dëggal leen ci wax yàlla laa tuqaddimu amran min al umuuri wala tusiru bi ra'yi min al mu ni bu njëkk a jël jiitu yonante bi ci ndigal nee na te bu leen def loo xam ne nii ci seen yéen a gogoon ëpp xel naan ko nii la bu leen ko def wala taqtoo bi hukmin min al ahkam te bu leen dagg ay atteem ci ay atte ndax la an yaxkumu laaha wa rasulihi bala ngeen waxati nangam neg leen ba yàlla atte ba digle nangam ngeen doog cay dugg moo tax mu nii te amma isa waralta masalatun fi majlisi laa yasbiquunahu bil jawaab nee na wa isa masaw maahu laa yamusuuna amaamahu yonante bi comme ni ko ñoom mag ñii toppoon sëñ Tuubaa doon def kenn daawul jiitu sëñ Tuubaa ci kanamam moo tax mu ni wa isa masaw maahu laa yam yamusuuna amaamahu bu ñu doon dox duñ dox jiitu yonante bi loolu lépp ci ay teggin la moo dem ba ci tarbiye gi nga xam ni moom la ñu fekk ñun war murit kenn waru ciy dox di ànd ak sab sëriñ di ko jiitu da koy bàyyi mu jiitu nga topp ci loolu alxuraan da koo jàngale woon ñoom mag ñu dikk pratiquer ko nee na wa isa adara wa isa adara taam laa yëpp tàddi una bu bu ñam bi dikkee duñ ca njëkkat tibb dañuy bàyyi ba sëñ bi li ñu doo ko kii lii lépp alxuraan da koo jàngale woon bil akli xablahu maanaam bool bi ñëw rek nga daal di gaaw ñu cabax sa loxo te sëñ bi tàmbalegul loolu dañ koy bañ lislaam nanguwu ko ay teggin nanguwu ko wa misla salika saairu umur nee na mboole mbir yi nag népp loolu la mel nee na tahsiman li maqaamaati sarif nee na loolu bu ñu koy def ngir màggal sarif bu ñu nee euh, al anbiya warasatul anbiya euh, warasatu al anbiya warasatul al muminu warasatul anbiya li ñu ci jublu mooy sëriñ si ñoom itam ñoo fi doon yonante yi te gannaaw lii ñu dañ ko doon def ngir ta euh, teral leen moom moo tax ñu koy defit ñun pour teral leen maa ngi wax sëñ bi léegi naan ko fii ma toog kat nag ma ko jëgal ndax waruma waaye nag yéen a ma ko digal waaw looy duglu na nga càam digal mu ni wax aj aj malalaaw fil ayat jami al umur nee yàlla rafetal na aaya ci mépp mbir ma nga naan laa tuxaddimoo amran bu leen jiitu ci ndigal aw fi'lan wala jëf nee na aw ra'yan wala def xalaat dafa ni yàpp sëñ bi xalaat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 min ay su laa tadruuna wala ci lu fa xam du ngeen ni seen jëf yàqu na te yëgu leen ko maa sababu nuzuul asil mu ni bi yàlla wax lii bi mu wàccee mi ngi wàcceen ci abdullahi bun subaye addama rakbun min tamim ala nabi dañoo amoon benn njëgg moo xam ne dañoo ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam na amru alim alqaqa min mabat ay ajaloo amiran alal wafdi ñu am benn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 Ababacar wax ko Omar mu ne ko déedéet maaratu xilaafa ko fatamaraaya fatama fatamaaraya ñuy werante nag atartafiat aswaatuha nee na bi seen kàddu jógee nag la aaya bii nag daal di wàcc moo tax mu ne inna allazina yaxudduuna amwaat aswaatahum inda rasulillahi ulaika lisina mtaana allahu qulubuhum li taqwa lahum maxfiratun wa asimun mu ni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 moo tax mu bu dee ci firi bi mu ni inna la si ne yax fi duuna mooy suufeel mooy yaxu duuna mooy damu kàddu aswaatahum fii majlisi nabi nga toog ci jarabu yonant bi nga suufeel sa kàddu di ko damm nee na maraatan muraatan lil adab boo koy def nga xam ne danga koy def ngir sàmmoonteeki teggin aulaay humul lazina axlasa llaahu quluubahum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 suma sama taala al arabu yàlla daal di ŋàññi nag al arab la ko waxee mooy sàmm na fu mu naan alquran xamu fu mooti al arabu asadu kufran wa nifaqan di dem di dem noonu moo al suma sama taala al arab al jufaata ma kaanu yaarifuuna xadra maqamaati nubuwa fa qaala subhanahu inna lasina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 am noonu baax na nee na inna lasina yunaaduunaka min waraa'il ujuraati aksarum laa yaqiluun nee na ñi nga xam ne noo nekk ci gannaaw néegu yonante bi di wax nee na li ci ëpp amuñu xel walaw annahum sabaro hatta taxruja ilayhim nee na buñ muñoon xaar ba mu génn la kaana xayran lahum loolu moo gën nañ muñal sëñ bi rek xamoo sëñ bi bu dalloo daa sonn waaye ku nekk bu sañoon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 Euh, mbokk yëpp innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wa taqullaaha laalakum turhamuun nee na yaa ayyuha llazina aamanu laa yasxar qawmun min qawmin ashaa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in ashaa an yakuna xayran minhunna nee na bu góor gi xas ku jigéen ki defe ni moo ko gën mu koy reetaan bu ku jigéen góor gi tam xas moroom yi defe ni moo ko gën mu koy reetaan bismillah nee na ma ma dem ci dénkaane sëñ bi ay sëñ bi lim dénkaane hmm, hmm. sëñ bi mi ngi wax ci dénkaan yi bari na naa tàmbalee ci li ngeen ma waxoon usulul adab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 Euh... dénkaane borom jolof ba laa loolu wax laa loolu bokk na ci sëñ Tuubaa dénkaane sëñ bi rek nga ma sëñ bi dafa doon dénk buur ba jolof Sàmba Lawbe mi ngi waxoo ne auzu billaahi bismillaah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 bala ngaa daanu def ci lu baax xabla xurujika mina an niami wa xabla xuruji niami min ndax boo bu yëfi bu palu gi daanee gi ko wàññiku mu ne ko nag intahati nasiha fa in xabiltaha laa biiri gi bi kat li ma la doon wax fii la yem boo ko boo ko nangoo falakka yaa ko moom wa illaa nag fa inna lillahi rajiuna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 mbooloom taalibe yi dañ koo dikkoon di ko wutloo téere buy jàngale teggin moo tax mu ne hëza wa inni yow ma soo ijaaba taalibe yi diñ liñ doon sàkku ci ay teggin tey ma wuyu leen ci moo tax mu ne hëza wa inni yow ma soo ijaaba baadul muridiina sawil inaaba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 ñaata nga koy ñàkk woo fi daaray ni boo ko amee kanzun boo fexee ba muy teggin nag ci ñaari kër yi am nga am koom wa xayru matasa bii soo kuy wut tedd nga ba am teggin am nga teraanga ci la teraanga yi nag ndax am na fu mu ci biir yux fi jahalatan wa qubu an nasabi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 muy woo ni ñi jëm ci moom waxaddaa nóor a balajin mu xëy leer gu feeñ am bay na naa si wu yàkkoonu kullu xalqan ya tax xaamasoona ñëpp daal di ñeewu ci biñ toppee sëñ bi nangul ko waaw bi fadlilaa woo baax da adda baroo mi samaani gannaaw bi ñu wanee nag leeru maam bàyyi adduna daal comme nii muri di def awalan ci njëkk li yasu na zalika al amru niltoo ku la waaye di minhu bi quwatin ku ne nag tëgg sa dënd defe ne yaa moom loola lawlaahu laysa bi yumkinu laylan aw faaxan nee na bu dul kon moom kon loolu duñ dëppook moom duñu am ku leen di teral <coughs> bi masiyaat yi saalika ismu Cheikh Ibrahima Fall alkarimu nafana laahu bi barik yi nafan nafaw xayr na amin bi jaay ayyuhal jamiu almuridina walmuridaati fi l ahli wal ahbab almutaalliqina billahi wa bi urmati din al islaamu bi jaay seyxina al asami fa inni qad talabtu wala bi xaramin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf yàgg fi lool te wér jazakumullahu xayran